di téere bu am solo boo xam ne ni Serigne Souhaïbou Mbacké ibn Khadim Rassoul moo ko bind juróom-ñetteelu guddi ci weeru koor képp ku ci julli ñaari rakka rakka bu nekk fatiha benn yoon lixlaas fukki yoon ak ñaar ata bu ci nekk des na ko ci bindal tuyaabaay jaamu yàlla ak junney at te dana mel ni itam ku lele xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki yu mat boole ci màndal leen woddu leen dana mel ni itam ku goreel junney jaam te bu ñaanee yàlla mu nungul ko ko te bu dee dekki dina dekkiwaale ak leer buy jéggi siraat dina gaawe ni ak melax te dees na ko ramuloo juróom-ñaar fukki nit ñoo xamante ni sawara yeeyoon na leen kon loolu mooy juróom-ñetteelu guddi gi képp ku ci julli ñaari rakka rakka bu nekk faatiha benn yoon xul walla ahad fukki yoon ak ñaar